jërë ngeen jëf euh, mbokk yi topp fi ci M7 TV ñoo ngi leen di nuyuwaat rek di leen ziar bu baax a baax kon rek euh, ci benn xibaar bi nga xam daal dem ba léegi yéen a koy dégg ci kuñ doomu imam ndaw la buñ jàppoon ak ci lënd bi euh, ko sax ba noppi loolu mi ngi am démb mu ne nag bi ñu koy àtte moom bi mu ñëwee taxaw rek ci li nga xam moom moo di rek kanamu àttekat bi nee moom de daa ñëwoon dimanche ci Dakar bii bii ñu jóge ci dimanche bii ñu jóge la ñëw Dakar ba mu ñëw nag euh, moom la bëggoon a teewee waaye bi mu ñëw mu nga waroon a wàcc ci benn rek sëram bu jigéen bu mu ñëwee nag na nga wàcc Padoa pour nga jël taxi pour a ci maam jaara moom nga xam si moom la a fekk si ci dimanche bi bu xëyee dem ci procès baayam nee nag bi mu ñëwee naka la dox tuuti am ñoo xam si daal dañoo daw daal di koy wër ndomba ci lañ ko rek daal di jàppee ginnaaw bi ñu ko jàppee nag ci lañ daal gàll euh, ci ci kawam ay tuuma ne moom dafa yoroon li nga xam daal moom moo di yàmbaa jooju te nee na moom mën naa waat ne amul lenn lu nuroog yàmbaa loo xam si moom euh, fekk nañ ko ci moom amul dara loo xam si nag loo xam lu ñu teree la loo xam yoroon na ko moom la ko indi woon fii daal ci Ndakaaru mooy ñëw pour ci débat bi pour teewee si rek procès bàyyam looloo ko indi Dakar loolu nag euh, ginnaaw tuuma yooyu gàll ci kawam procureur nee na nag nañ ko tëj ñaari voilà léegi nag 6 bi moom dina daal di rek euh, joxe dogalu àtteem le 10 mars bi nga xam ci la ñuy wutali la ñuy wax ba xam moom day tëddi ca kaso ba wala nag lañ koy bàyyi mu dem ginnaaw rek loolu nga xam si wax na ko kon daal nee na ay accusation rek lañ teg ci kaw waaye amul leen lu ñu fekkoon ci moom moom doomu kooku ñu ne daal moom doomu imaam ndaw la euh, moom la ñu daal di teg ay euh, moom la ko procureur sàkku ba ci moom ñu teg ko mi ñaari ati kaso jërë mbokk yi doon topp fii Info 7 TV di leen leen abonné tey bés cloche pour ngeen di gaaw a am suñu information